ah lii rek mérite la Baba Sarr mais di ko nuyu au passage. ñaar xam na lu ñett xam. ah ma ko lu bokk. waaye jarul xam naa ko daal xam naa ko ci. muy. xam ngeen ni asma dafa rax naar. ba naari jàmm doon sénégalaise déglu ma. nga. danga rax naar. doon eh, citoyenne panafricaine Afrique centrale Centrafrique. Mhm. Eh, ak Afrique centrale. doon lébu doon lébu doon lébu. lay lay la laa. allah xam nga loolu. doon séeréer teg ci séeréer ngom. waaw lépp yi ak séeréer yi. benn lañu. ñii dañoo dem xaw gedd tuuti xam ñoom. dafa mérite. <laughs> Aïcha je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2021 Pape Assane après dinaa lijjanti 17 mai wu daaw foo nekkoon ak ci loon newoon waaye bi pa dañuy daal di dem rek jublu ci éphéméride li xew ci réew mi ñu tàmbale ko ci année 1970 mu nekkoon l'apparition du premier numéro du quotidien national d'information Le Soleil créé le 14 février justement 1970 pour prendre la suite du Dakar Matin Pape Assane ah Dakar Matin moo jiitu woon après ñëw Euh, Soleil nag dafa amoon benn environnement bu mu juddoo boo xam ni kii di président Léopold Sédar Senghor dafa Senghor moo aay. Hmm. Senghor Senghor moo aay xam nga lu Senghor def malheureusement c'est en notre défaveur et je suis triste de le dire malgré euh, la légende qu'il qu'il fut euh, dans un sens mais ci beneen sens. Senghor dafa réussir le prolongement de l'acculturation mm-hmm. il parlait de la négritude certes mais là où un Cheikh Anta Diop lui disait Siggi en phonétique wolof ça s'écrit Siggi ñaari G Senghor qui refusait qui disait non c'est un seul G Senghor réfléchissait en français Cheikh Anta réfléchissait en, en, en sénégalais loolu moo ñu topp ba tey c'est-à-dire que le soleil c'était le prolongement de la politique c'est-à-dire de faire de sorte que sénégalais yi. Mhm. nekk des des presque des complexes da ngay gis koo xam ni man du ma ko fàtte mukk soleil maa nga xamee ci sama maam. Mhm. da ko gëmoon xam nga gëm gëm soleil yaa nave sama mbokk yi tëngeej ñu ngi maa déglu ak kilifa yi il aimait te loolu Senghor daf ko réussir ci mag ñu njëkk ña. Mhm. ils avaient leurs principes et tout et valeurs mais loolu moo doon tâche d'huile bi nga xam ne moom ñu topp def ñu des def ñu presque ñu ñàkk gëm suñu bopp ñàkk gëm Sénégal authenticité bi heureusement que on est en train de de changer mais le soleil ci wàllu information xasma comme ni mu koy defee tey actuellement te tey sax a tane mais quand bien même am na loo xam ne positif na ci xam nga mooy lan jusqu'ici jusqu'ici pour man c'est le journal le mieux au Sénégal très bien voilà 1988 ci la ñuy tàbbi daal di nekk le lever de l'état la levée autant pour moi de l'état d'urgence instauré euh, dans la région de Dakar depuis le 29 février lendemain de l'élection euh, présidentielle dafa mel ni couvre-feu état d'urgence xaw na fi xaw yàgg euh, donte fësu comme ni mu fi fësee ren ci ci contexte boo xam ni dëkk bi day am jaxasoo bi bañ ñu egg niveau bi mu daal di koy teg mais ci nguur yi fi jaar yépp bu ñu waxalee yàlla rek muy parti socialiste ak ñi fi ne lépp ñu ngi ko tegoon ci nañ ma baal kàddu bi ndëngate c'est-à-dire que li population yi bëgg duñ ci ne ba population yi révolté wu ñuy xool nu leen di coincé coup yi fi am yépp loolu la woon Ablaye Wade 88 gagné na élection yi gañewul carte gi lëndëm na gars yi xeex nañu ñu jàpp leen couvre feu donc loolu moo fi ne 1990, attaque de la sous-préfecture de Niassia, dans euh, la basse Casamance, justement, par une bande armée. Bilan un mort, deux blessés, euh, dont le sous-préfet. Papa Sanchi, wax ko fii Casamance bu njëngatoo ñooma déedéet. waaw ah, kan la tubaab bi nasaraan si. Casamance mooy mooy mooy mooy épinu Sénégal mooy foo xam ni bu ñu bëggee tiital rek. yëngal ko day yëngatu day yëngatu bu baax ba nga tiit toog yii c'est-à-dire la nga doon dox dootoo ko mun ndox xam nga xamoo ni président Macky Sall ndeysaan yenn saa dama koy yërëm. ndeysaan parce que parfois dañ koy coince. Mhm. gis nga moom ak ak ak ñi moo àndal. te ñi moo àndal nag ndeysaan foofu lañu ñu war a amee dayoo dimbali ko xettali ko tey ji nii. asma est-ce que xam nga ni Casamance mën na dundal toute la région ouest africaine Casamance. ci ci fépp ci fànn yëpp. Ah. Casamance am na jamaa. mooy zircon bi deuxième mai jamaa deuxième mai nga xam ne tey lu ne mën na fa am Casamance am na pétrole asma Casamance am na gaz euh, cheikh bi xaadim Casamance am na lépp màdd bi bi gën a graaw nag. est-ce que xam nga ni tubaab bi ñu ngi fay def ay recherche sur nos plantes sur plein de choses. Ah nañ ñu baax comme ni ñuy def Kidal gis ngeen daal ni mu mel. au Mali. Ah, daal dañ ñëw ne la blocus. Mhm. armée bi mali malienne sax mënu fa dem parce que dañ ne noo ay terroristes ñoo fa ne nangam nangam kenn newul Kidal xam nga ku fa ne. ay nasaraan yuy jël or bi di yóbbu. léegi nag boo bañee jege foofu pour bañ nga jege ko ñu tegal la les condition que terrorisme yi ñoo fa ne ay Casamance ak toutes les zones où il y a des richesses en Afrique gars noonu lañ koy gérer donc loolu nga xam ne xew na foofu dañuy monter puzzle bi ay bandi yëngatu ñu ne ah foofu yëngatu na état bi jóg woote réunion ñu ne ca on les occupe on les occupe à gauche à droite du ñu avancer c'est-à-dire que parfois même xanaa xamoon ne président Macky Sall ci programme am yoonu yokkute c'était un excellent programme dafa amoon intention def ba mu baax wa dëgg fa yàlla mais day am détournement d'objectif te day nekk loo xam ne kilifa yi duñ ko mën wax. très la naan boo duggee ci nguur gi rek ngay xam li xew mais tant que. duggoo les réalités de l' exercice du pouvoir. Mhm. exact tant que kële. Mm. tant que kële tippuwuñu. ñu mm. dafa laaj fit nag. léegi léegi moo tax nag ñu bëri xëy na xaw topp njiitum Pastef kii di Ousmane Sonko parce que dañu am yaakaar ne bu bàyyeekoo Casamance daal di xam li war daal di mën a dëgër bopp digganteem ak nasaraan si mën nañu am yaakaar ni eh, suñu buumu jaam dana fa dagg. moom sax bu toogee il va subir la même chose dama wax lu mel ni midi. Ah. waaw lu mel ni bëccëg. Hmm. yal na yàlla suturaal ko su gënee ci moom. Hmm. bu gënee ci parce que tey Sénégal moom ku fiy toogati ñu naan président hmm. damay ñaan yàlla na gën ci réew mi ak ku muntu doon. Bouga nag Ousmane Sonko Khalifa Abacar Sall keneen ak keneen ku fi war a toog yàlla na gën ci sénégalais yi gën ci ñun ba pare. gën ci yow jik la jik ñu bu loolu day metti mais mun naa la wax benn affaire. ku fi mënti toog ku mënti doon. Mm. gaa ñi dinañ fexe ba contrôler la. yow xoolal ma yow ñun suñu sécurité ñu naan la suñu espionnage Sénégal ñun espionnage bi ñuy wax nag naa la benn affaire am na noo koy déggee maanaam suñu contrôle bi ñuy contrôler population yi fii ñu ne la kaka yore Israël la tudd Sénégal war a jàkkaarloo défendre Palestine mais du ko mën parce que. yooyu yooyu ah, ah da ngay gérer da ngay obligé gérer diplomatie. alors que tey on aurait pu s'en passer dem beneen sens. Mm. mais objectif ba la koy tax a jóg c'est-à-dire que li li war a tax a jóg nguur gi mooy comment faire de sorte que samay population éclore dans le bon sens. Mm. mais comment les contrôler pour mën leen téye malheureusement. <laughs> résultat bi loolu la muy France di Israël regardez la France qui refuse une manifestation boo xam ni à l'endroit des Palestiniens fa lañ ko teg te France ne liberté munaafiqun Madios loolu mu daal di doy waar ba tax ne ñun dañuy daal di bàyyi foofule tàbbi ci 2019 l'équipe nationale de football euh, du Sénégal ay waa la daan la <laughs> Bama soxna ne ko mu Bama hmm? wax leen ko mu Bama <laughs> Aïcha mi ngi noonu l'équipe nationale de football du Sénégal des U17 par celle de Guinée <laughs> Aïcha, ça ne fait pas rire et qui avait déposé une réclamation contre deux joueurs guinéens qui auraient triché sur leur âge réel obtiennent gain de cause. La CAF désigne le Sénégal qualifié à la Coupe du Monde au détriment de la Guinée qui un interjette appel euh, Soxna Fall ci boobule jamono kon xam nga tricher am na tricher am na. IRM <laughs> bi ñuy def. Euh, mooy permettre ñu définir âge réel joueur yi. Euh, loolu Guinée tam mënu ko avalé ba tey mënuñu ko baal wax nañ ci lu ne mhm. dégg nañ ci lu ne mais nag euh, xëy nam tey la gën a fes ñu koy def ñu leen di jàpp waaye dafa yàgg ci ci ci équipe africaine yi surtout euh, da ngay gis ay ponkal yoo xamante ne si war a daje ak ay gone yu ndaw déjà à l'œil nu rek boo leen xoolee da ngay xam ne lii euh, jaaduwul tey it tolloowuñ ay at mais tricher boobu ni nga ko waxee woon dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu passeport loolu moo leen gën a feeñal Sénégal nag def ci jéego bu am solo topp ko ba mu sës. Mmh. looloo leen permettre woon ñu qualifier ak le sélectionneur Malick Daf bi leen yore ñu dem euh, à la coupe du monde c'était un excellent boo xam ne def nañ ko ci wàll woowu. très bien ci lañ koy def une belle participation. Mm-hmm. très bien ci lañ koy ndar keppe Pape Assane. jërëjëf le 17 mai 2020 foo ne woon 2019 lañ tëj éphéméride réew mi. Euh, ah, ma lijjanti loolu ma bàyyi mu seet. bàyyi mu seet. <laughs> ca mi ngi noonu sur la toile j'espère que vous allez bien dinaa bàyyi mu sedd waaye du tere benn yoon ma jottali yóbbante bi nga xamante ni suñu maman bi mi ngi wuyoo ci turu Kiné Sarr mi ngi fële ji sëy Thiès ndar ndar la ñu man mhm. daf ñu sopp bëgg ñu te